waaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sangu-sang yi di sant sama ñaari waajur di sant sama wasila Cheikh Roqaye Fall borom digal Fall euh, maa ngi dugg ci théâtre bi ci feewu 2013 euh, lëz billaay li naan ku gis ne nen nena ngi lëz laata santeel buntu bees dayaa toujours ma wax ko man bu ma joué wul sax damaa neex bu ma nekkul artiste samay démonstration samay buddeeku ci mbedd mi rek lës di reetaan di laaj kii kan la ñaa bu bees dayaa ñàkk ki ñaan lool ne ma kii moo yore dina ma neex daal di koy tooñ ne ko lës doo ko ci dugal may tooñ ñoom la ma raane ña fa taxawoon naan leen du ngeen ma dugal ci théâtre bi man damaa neex de lës daal di ne ma jox ma sa numéro ma jox ko ko billaay ñang bakka daadu mi ci mbayeen barki Sëriñ Bamba Mbàkke koo koy gar mi ma toog ay fan mu woo ma ma woowee ne ma ñëwal léegi joué ma ñaari salaamaaleykum ndax booba marché mitti na lool dëkk bi tar na ma yoreb loxo mu ne ma wàccal kaar bi jël taxi boo dikkee ma di ma fay ko keroog ba ma ñëwee muy première euh, kii bi saison bi muy vingt cinquième épisode bi ma ñëw joué euh, commencé joué fekk fa ñoom daaru mii nag toog ku dee dan lay ber fekk fa ñoom Alioune Mbaye ñoom Fodé Maïmouna Medzo jaata ñoom ñëpp ma fekk leen fa ñu jël ma nag def ma seen yaay daaro moom dañ maa féetaleeg moom boo waxee ñu ne maam ay sa daaro mooy doomam may Maymuna it nekk sama doom itam di sama xarit Oumy Diagne ji rafet zéro faute ñoom Alioune Mbaye Fodé ñoom ñëpp ba ci technicien yi ñoom Mor Joxaaneeg ñoom Ibeeg ñëpp ba ci gitaar vraiment dina ma neex boo gisee ñuy wax sax naan dina ma neex dina ma neex solidarité ba fa nekk la bëñ ak làmmiñ sax a dëkk léeg-léeg sax danañ kii mais du nu defante loo xam ne lu ñaaw la ku am benn boo ko denc sa sa saak boo dikkee di nga ne sa morom am naa benn bi nan ko séddoo ñu bokk ko séddoo ndax itam nit ki sooy wax rek da ngay wax te yàlla tax El Hadj nag moom munuma koo fay yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay te Leuz li muy def euh, ci lu baax kenn mënu la koo expliquer Leuz tey jii ñun mën na noo toog tey ndax buñ la nee le premier lan lay fay rek du la premier rek ngay am xaalis ndax borom alal yi toujours nu dem ci gab sax fekk mu kale waaye lëz ku ko ci xëcc lu ne ci poosam mu jox la ko lëz rek léeg-léeg dina ñibbi sax te xam naa ne du yóbbaale dépense waaw lëz dafa baax lëz kenn mënu koo fay loo ko wax mu ree bu nuy tourner di perturber di reetaan di def ay yëf di lu nu neex la nuy def tournage beeg tou léeg-léeg sax da ngay dikk mer mu ne waaye yéen lu tax yéen kii ma dangeen ngeen maa yab da a kii ni fekk rek yabuñu ko ak mbaaxam ak ni ko yàlla bind rek moo tax ñu mel ak moom noonu Leuz dafa jaxasoo ak ñun vraiment sama carrière en dehors dina ma neex ah du dara damay defar samay cuuraay di ko jaay léeg-léeg ma am marchandise mun ma jox ma ràngu ko dem jaay ko fan si itam bàyyiwun ma sama fans yooyu nag di ngeen leen may nag ma tudd leen bàyyiwun ma ku ci mel ni Faat Cissé ca France ku ci mel ni Soxna Jaxate ca France waaw waaw Faat Cissé madame Gauthier Soxna Jaxate kooku ñooñu dama leen di ñaanal rek sama doom yi nekk fii ñoo Maritu jàlloo waagu ñaay Fama Cissé di seen yaay Faat Diallo Kumba Cissé ca amerique Daado Ndiaye Alburi Biram Pende ñi mi ci nga deme ni ci nga a neen Mariam Cissé ndey seen bu Cissé xale yi kenn bàyyiwu ma kenn ma lu baax rek la ma fan sii defal tey jii bu ñu demoon joué ji sax ñu fay nu téeméeri ñun ñii toog ñu séddoo ko ku ne am ko ñun ñëpp dañuy kontaan ndax le le sueur de ton front nga jël ko di ko lekk loolu kenn mënu koo am ci àdduna loolu mooy alal ju lew domm domm domm doom te bu nu taxawee ci kaw seen wala nu taxaw di théâtre wala nuy def lu nu manti def fan sii nag wax dëgg yàlla ñoo nu dooleel madame la présidente it danaa ko gërëm Marème fay sàll Marème fay sàll woo na waa dina ma neex bu nu dikk mu yëkkati fukki million jox leen ci troisième saison bi nit ñi nag buñ la defalee lu baax boo toogee di ko wax mën nañ ni sax ay dóor la waaye du dóor waaye ku nekk xam na ne Marème Faye Sall billaay wallaahi taalaahi jabari président bu ne jaar na fi mais li may wax sénégalais yaa ngi koy dégg lim fi def kenn defu ko fi ku mu sa xam sa soxla tey mu faju ku mu ba bërki démb suñu mbokk artiste miy feebar daf cee taxaw bay ciw laajcam def ci lim ci mën a def Marème fay Sall dañ koy ñaanal ci kaw ci kanam waaw yàlla may na ma borom kër bu tudd Cheikh Ibra Fall waaw suwet la dëkk waaw ku nuy wax soxna Roqaya Mbay moo ko xool ba ma doy ko mu ne ma sama papa la yëkkati may ma ko te yàgg naa toog dégguma alxayri kon su yàlla dogalee ma dem ba am nasaraan bu tuub topp diiney maam Cheikh Rafaal te ma gëm maam seex Cheikh Rafaal doyloo maam seex ra Rafaal ab sëtam di Cheikh Roqaye Fall borom digal Fall mu Cheikh Faye Baye Gour mu sëñ moo Modou Moustapha Fall di sama wasila sama maam Sira Mbaye Cheikh Ibra Fall daggal ko kër ca njaareem ngaw la ko ca njaareem takkaloo kër soxna Fall jëgg ku ne xam na ko waaw Cheikh Ibra ko daggal sama maam Sira Mbaye may ko ko kon nag man euh, sëy rek laay def ndax sama ndey ji ma jur moom la def ba génne euh, àllaaxira sama papa daf ma daan wax boo amul lu baax kenn du ko am ndax sa yaay jaar naa ak man foo xam ne vraiment ma nga ca àllaaxira waaye sant naa ko gërëm naa ko dangay ngay jéng rek waaye doo daanu kon nag man sëy rek laa war a def sëy laa xam damay sëy nag te yàlla tax moo ma ci dugal wax dëgg yàlla ndax ku dem ba yàlla may la euh, jëkkër mu. doyloo ki nga xam ne moom nga doyloo vraiment da nga ko war a téye sëyal ko te yàlla tax ah yàlla nag moo am ay millions waaye maa ngi sant yàlla dëkkal na ma bu ma feebaree dina ma faj bu ma xiifee dina ma jox ma lekk wax dëgg yàlla million nag moom yàlla moo ko yor te vraiment million taxut ma dugg ci sëy bi waaw ki ma ko may xam na ni sax million taxut ma dugg ci ndax man dorobe laa ab gawlo laa kuy lekk sukkur boo ma séenee ŋaang ñi may liggéeyandul xam na ñoom ñëpp xam nañ loolu am naa ñaari yoon boroom kër yàlla dogal na ko ma am ci ñaari doom yu góor waaw ah man de ku nekk xam na ne maa ngi yëngatu ci aar bi te am na saison série boo xam ne nii ñu ngi koy wax nu daanu mi TFM lay jaar lës daal mënuma koo fay lës daal mënuma koo fay moo ma ne coppet ne ma maam Aysa ma ne ko naam mu ne ma demal jëlal numéro bi woo ko mu ngeen wootante nga dem ma yegg dem joué ji muy nuu daanu lëse ma foofu te damaa fas yéene di théâtre di bégal doomu aadama yi di ba sama dernier souffle may théâtre ndax ci laa amee lu ne ci la ma nit ñi gise waat ndax réeroon naa kenn gisatuma woon te li ma ci gën a neex mooy waa kër Serigne Bara Falilou yi nga xam ne ci leen ma gise waat ndax mën naa ne sax sëñ Baara sama nijaay la ñoom soxna aadama Mbàkke mu soxna Awa Diop mu sëñ Moodu Xabbaan ñoo ñëpp ci leen ma gisee téye ma ay ñoom soxna Daba Faal lu nekk ñu di ma ko defal vraiment man aar bi mënuma leen a fay di leen sant di leen gërëm di sant yi nag Pape Faye président des artistes su comédien du Sénégal moo ma jox carte artiste Arcos yàlla na ko yàlla mi nga xam ne moo am fay mu fay ko ko ndax loolu rek vraiment diplôme la di gërëm nag sama xarit boo xam ne moom itam bàyyiwuma bërki dem bi ma nga xamee ne sama doom dafa feebar seetaanuma benn yoon muy antaja ma nga ci Genève Far Cissé seetaanuma soxna jaxate seetaanuma Seex Saaxo mi nga xam ne moo ma yore ci série bu bees bi moo woo nit kooku yëkkati fukki junni taseeg man jox ma ko ma faj sama doom nit ki bu la defalee lu baax da nga koy wax boo munta taxaw ci mbedd yi di ko yuuxu soo jàkkaarloo caméra bi nga sant ko gërëm ko ndax caméra bi sàq mi la wër na nam réew man itam maa ngi leen di gërëm di leen sant di dolli nag di gërëm Leuz TV yal na ko yàlla may fan wu gudd ak wër Leuz bàyyi naa la ak yàlla ak Serigne Touba mi nga yaakaar ak Seydina Mouhamed jërëjëf